Baye Jacques Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay awo. alors ngay conseiller technique numéro un ca ministère des sports di administrateur yi tamit euh, ci plateforme club des experts sportifs euh, tey Sénégal ak Cameroun daana jogante euh, ci kan bi nga xamante ne moom lañu taxawal nii lan moo ci sa mbébét wala li nga ciy xaar. waaw sama mbébét mooy mooy ñu gañe match bi rek xam naa ni du yomb parce que ñun njëkkeelu match dañ ko gagné par 3 bi à 0 face à la Gambie Cameroun aussi dafa souffert dafa souffert moo Guinée ba ñu match nul 1 te maa ngi gis ne bi ma doon def monitoring bi maa gis ne la presse camerounaise n'a pas été tendre avec le sélectionneur ni avec euh, les Camerounais et encore moins ak seen gardien de but André Onana qui venu le jour du match en avion privé ko dugal donc ñun li ñu war a def mooy que ni au moins dañuy ñaan yàlla dynamique bi ñu ko commencé ñu continuer ko maanaam euh, gagné Cameroun aussi Euh, avec la manière parce que xam ne tey man équipe sénégalaise bi aw ma dara dara dara aw ma xaar ba yàlla parce que wóolu naa leen wóolu boo xam ne ñoom laa gën a wóolu sax que en 2002 maintenant c'est à eux aussi de faire le et aussi respecter l'adversaire parce que match bi du yomb parce que Camerounais boo leen ne Sénégal ñoom ñu dee terrain pour bañ a maintenant c'est un match de football aussi tout arriver mais ne ñu défendre parce donc loolu moo tax contexte de sécurité te je pense que les jours aujourd'hui ñoom li leen war xam nañu seen warugar xam nañu aussi que ñoom défi bi leen fii ak li Sénégalais yi di xaar ci pour ñu indilaat le président Macky Sall un deuxième trophée comme ça mu quitter en beauté au moins le pouvoir là parce que def na si loo xam ne aussi quoi qu'on puisse dire buñ ko waxee aussi li muy investir ci sport nit ñi war nañ ko delloo njukkal delloo njukkal bi mooy mbir ko ndam li jox ko ko ne ko président am ndam léegi nii. très bien nan nga gisee tamit li jëm ci euh, performance su euh, Lamine Camara. bon Lamine Camara man xam nga man ay performance am bettu ma parce que xam nga c'est un garçon boo xam ne que j'ai longtemps suivi parce que Lamine Camara Casa Sport la nekkoon après jógee Casa Sport dem dem euh, dem. génération foot mais soo xoolee ci sélection bu nekk yëpp Lamine Kaolack soo xoolee ci sélection yi sax lañ ko gën a ràññee que génération foot mu ci génération mu def loo xam ne aussi euh, en coupe d' afrique ak yenn euh, euh, sélection yi mu football yëpp mu def loo xam ni lu ma ci ay ci xale bu ndaw bi ba pare nekk le meilleur joueur africain ñu choisir ko comme meilleur joueur africain dañ ko choisir comme meilleur joueur africain moom mu et donc franchir un nouveau palier Aliou Cissé intégré ko dans la carrière gis ngeen keroog li mu def ci football da ngay xam ne kii au moins football dafa nekk dans ses gènes maanaam dafa nekk ci deretam te boo xoolee aussi Lamine Camara dafay sóor xale boo xam ne dafa jógee génération pour rek dem euh, football club Metz nekk fa titulaire loolu dafa jafe ci yi jóge xam ne dañuy jóge Afrique Sénégal pour dem ci wàllu woowu dafay jafe ci ñoom mm-hmm. mais Lamine Camara réussir na adaptation boobu ba nga xam ne donc aussi réussir na aussi son intégration au sein de la sélection A mm-hmm. dans l'histoire parce que c'est le plus jeune joueur à avoir marqué un doublé en match d'ouverture donc dafay nekk ci li ñuy wax la CAN la CAF les faits et les chiffres donc loolu aussi dañ ko ci dañ ko ci remercier di ko ñaanal yàlla aussi di bi musal ko yàlla jàppale ko yàlla aar ko ba mu nekk une car mu def une carrière fulgurante boo xam ne aussi même plus fulgurante que celle de Sadio Mané parce que Lamine Camara talent bi mu am il très rare nga gis ko xale yi parce que c'est un boo xam ne ba pare aussi da ngay xam ne kii am na yar parce que xale la aussi mais nañ ko nañ ko nañ ko gën a encadré ñaanal ko yàlla. alors nag gis nga ni honnêtement bett ma parce que gis naa ko mu joué sur gis naa ko mu joué club. ndax gis nga ni euh, Sénégal euh, pare na ngir mën a rek dóor Cameroun. Ah, absolument pourquoi pas parce que soo xoolee ñun footballeur bi ñu am nga xool de la ligne de but ah de la ligne de but à l'avant maanaam soo jëlee ga ñëw gardien mun ko sax ak gardien mun na méngale par exemple Premier Mendy ak ak ak Arsenal nga leen méngale mais soo xoolee en défense vraiment Kalidou Koulibaly ak Niakhaté amuñu ak ñoom Niakhaté ak Jacobs amuñu ay naataango ci Cameroun franchement soo xoolee en valeur intrinsèque nga ñëw ci milieu terrain bi aussi nga xool ku mel ni Gana Gueye ku mel ni ku mel ni Pape Gueye ku mel ni Lamine Camara ah, ku mel ni ndem si ndeysaan Kouyaté ñu ngi koy jaale waajuram bi nga xam génn yàlla na ko yàlla yàlla na Rasulullah doon wékkalam firdawsi nga xool xale yu mel noonu nga xam ni par exemple ñun am nañu équipe boo xam ne ku mel ni par exemple Krépin Diatta mais ñooñu seen am valeur intrinsèque ñoo mën yenn joueurs Cameroun mais tey ñun amuñu dara dara dara lu ñuy ñëwee sélection africaine amuñu du du Maroc du Algérie du Cameroun du Côte d'Ivoire ñoom à la limite sax ñoom ñoo ñuy ñëwee li ñu am parce que aussi il faut reconnaître aussi que fédération dañu liggéey la fédération de football a travaillé dañu liggéey pour pour am lii donc il faut ñu delloo leen jukkal rendre leen hommage donc man je pense que ñun suñu match ak Cameroun ma o ci xel ñaar bi mooy mais nag football la aussi xam nga football amul logique mun nga mën équipe dominer ko dóor ko mun mun nga mën équipe dominer ko mu gañe la comme mun nga mën équipe aussi dominer ko ko gañe ngay match nul mais je sais que ni xale yi ñoom xam nañu liñ leen li leen di xaar te surtout aussi ils ont une revanche sur Cameroun aussi dafay nekk dans une position boo xam ne aujourd'hui elle est sous pression parce que ñun dañ dem foofu seen dëkk jël coupe bi te premier match dafa match ñu la Guinée donc la presse n'a pas été tendre avec l'entraîneur ni avec les joueurs ni avec le gardien Anana ba nga xam ne moom dafa ñëw ci bës bi wàcc wàcc avion privé très bien donc man. Mhm. man ak Cameroun daal Sénégal Cameroun aw ma xel ñaar daal. Mhm. alors nan nga gisee sélection Aliou Cissé yi tamit euh, joueurs yi nga xam te tànn nañ leen ngir ñu dem ci kan bi. man pour man sélection bi moo gën bu deux mille vingt deux. maintenant loolu aussi lan moo koy matérialiser bés bu ñu jëlee coupe d' Afrique des nations bi au soir du en tout cas du onze février à Abidjan loolu moo koy matérialiser mais soo xoolee parce que sélection bu tax ma ne moo gën parce que am na expérience. am na ay joueurs yoo xam ne gagné coupe d'Afrique léegi xam nañu yoon bi def nañu plus de cinq coupe d'Afrique am na ñoo xam def nañu quatre coupe d'Afrique am ñoo xam def nañu trois coupe d'Afrique am ñoo xam ne def nañu coupe d'Afrique ñooñu dañu am dañ ils besoin de prouver am ñoo xam ne dañu bëgg prouver am na ñoo xam ne am nañu expérience ba dañuy woon xale yi yoon bi nii la fi ngeen di jaar fi ngeen di jaar donc man je pense que lan moo koy matérialiser comme li ko waxee mooy bu ñu gañee incha allah au soir du onze mais que li ma la man équipe bi aw ma ci xel ñaar sama xel daf ciy dal parce que man pour man en valeur intrinsèque moo gën ñee mais en valeur performante nag il faut ñu xaar au soir onze février parce que bu ñu jëlee coupe bi nag ba yóbbul ko le président Macky Sall ci laay ci laay gën a firnde sama wax yi ne leen bii moo gënoon bële alors nan nga gisee tamit le fait que supporters ivoiriens yi ci bëri ñoo ngi jaawlu jafe-jafe ngir mën a am ay billets ngir fekkee a fekkee match Sénégal Cameroun. xam nga jafe-jafe billets yi c'est partout dans le monde soo demee coupe du monde am nga dem Jeux olympiques dafay am nga dem ay championnat du monde dafay am jafe-jafe billets yi nekk lay parce que xam nga tey pour la première fois dans l'histoire la CAF a matérialisé ce qu'on appelle le leasing le leasing c'est en ligne. doo amul sax fay ngay da ngay dugal sa sa carte bi la maintenant le président euh, de la République ivoirienne son excellence monsieur Alassane Ouattara hier en conseil des ministres a demandé à la CAF de régler la question du ticketing parce que lui il ne peut pas comprendre que un peuple comme un pays comme la Côte d'Ivoire organise et que les sont vides alors que Ivoiriens yi ñoom dañu bëgg sport dañu bëgg dañu bëgg football donc loolu aussi et dañ ko génne nañ sax benn communiqué benn communiqué en conseil des ministres pour ñaawlu loolu mais pour xool nan lañ ko saafaraale donc loolu dafa am solo mais l'autre élément aussi mooy ci Côte d'Ivoire soo fi ñëwee ngay xam ni ñii dañu bëgg fool dañ koy tudd da ngay gis sax jaaykatu marché yi démb ma demee di doxantu da ngay gis ko jënd maillot Sénégal jënd maillot Côte d'Ivoire donc boo waxee ñu ne ñu Sénégal et la Côte d'Ivoire nga gis aussi ma gis ci benn femme boo xam ni mu ngi tudd euh, Ariane Sissoko mu jënd maillot mu ne ma ndax yow Sénégalais nga ma ne ko waaw man Sénégal mu ne ma noo sant ma ko Diop mu jël maillot bi floqué ko au nom de bind ci Ariane bi Diop ma ne ko li tax mu ne ma je ko ah, jël coupe bi mu ne ma waaw volontiers ce sera fait mais le plus important c'est que nous sommes des frères et sœurs donc xam dalay won aujourd'hui l'hospitalité bi ivoirien yi am mais la fraternité bi am et j'ai rencontré des amis ivoiriens des amis algériens man dañ leen ñoom yéen ñoom ko amee hospitalier au Sénégal et en Côte d'Ivoire ils étaient impressionnés parce que ñoom dañu amoon excusez du terme entre guillemets dañu amoon benn idée arrêtée sur les ñàkk c'est ce qu'il m'a dit mais bi ñu ñëwee d'Ivoire dañu xam donc Côte d'Ivoire c'est comme un peuple comme tu es à l'aise en sécurité donc loolu aussi ñun dañuy dolli sant yàlla pour wane ne ñun suñu suñu suñu continent muy Afrique Afrique bi ñun ñoo ko mën a liggéey ñoo ko mën a defar mais defar bi mooy il faut ñu ànd nekk benn prôner ce qu'on appelle l'unité africaine, prôner aussi l'union et la solidarité. Mais Très je pense bien. que la question du Teketin, il va falloir peut-être que ñu régler ko xëy na peut-être que le président de la Côte d'Ivoire il arrivera à un moment mu ne peut être il va acheter les billets pour la gratuité en tout cas des populations africaines et des ivoiriennes pourquoi pas. Euh, gis ne ñoom seen jogante Sénégal Gambie jot na kàddu lu toll ci ñetti bal euh, ci dara nan nga gisee euh, performance su gaynde yi. non ma ko qualifier de performance c'est une belle prestation déjà équipe nationale du Sénégal moom mooy champion d'Afrique te champion d'Afrique boo xam ni la dafa doon wane boppam ci wane boppam ci ay absence su ay titulaire parce que Gana Gueye jéewul euh, euh, Kouyaté demul euh, kii itam dafa blessé woon nu mu tudd donc comment dirais-je encore y avait Gana Gueye donc donc cela veut dire que quelque part ñi nga xam ne tey ñëw pare nañu loolu moo lay woon ñun sunu sunu baa nu mu riche parce que équipe aussi ban bu riche rek équipe bi day day day day dox te loolu moom ñun loolu ñun loolu mooy suñu force suñu force mooy dañu am ban bu riche ñun ku blessé mën nañ la suppléer je touche du dañu ñaan yàlla ñëpp nekk en pleine forme je pense que man équipe sénégalaise bi performance bi ñu def contre euh, belle prestation bi ñu def contre kii man euh, bettu ma xam nga kañ laay xaar performance performance bi mooy bu ñu jëlee bu ñu conserver suñu couronne euh, continentale ci laay ne on a fait une mais man ba léegi parce que du du victoire moo may moo may moo may wala moo may tiiloo non parce que victoire ñoom vraiment yàgg nañu yàgg nañu teral ci victoire léegi la lañu xaar la victoire finale comme ça au soir du 11 février que ce que ce être offert encore une nouvelle fois au président la République à l'ensemble du peuple sénégalais ñu xam ne li au moins que le football travaille et c'est l'occasion aussi ñu delloo njukkal la fédération sénégalaise parce que xam nañu ñu liggéey. parce que bu du liggéey rek ay joxe lii bu du bu ñu woon liggéeyul du ñu am lii te gis nga ren lii am embelli de cinq trophées ñu gagné ko ay ay les les les autres catégories ak le le le comment dirais ak ak le beach soccer qu'on appelle maintenant le football de sable parce que am na ay dëkk yoo xam ne amul géej moo tax léegi FIFA daf ko daf ko daf ko uniformiser daf ko nu ñu tuddee ko football de sable parce que ku mel ni Mali amul géej ak yooyu donc te bëgg nañu bokk ci sport yooyu donc moo tax ak le football féminin bi nga xam ne qualifié na à la prochaine coupe d'Afrique des Nations te lii dañ ciy delloo njukkal le président Augustin Senghor tout le comité exécutif di parce que tey ñoom jox nañu ay mbégte yoo xam ne xëy na ñun presque toog ñu soixante ans di jooy di xaar ñu ñëw indi ñu ko dañ di delloo njukkal gërëm leen sant leen parce que dañuy bàyyi seen njaboot bàyyi seen temps bàyyi seen lépp di liggéey pour la fédération di liggéey pour askan donc dañ di delloo njukkal c'est très bien alors gis nga ni euh, Sénégal mën na jël kan bi. parce que man bu dee jël kan en toute man xool naa pratiquement tous les statistiques de tous les jours xool naa aussi la valeur intrinsèque de chaque jour dans chaque sélection ñun li ñu am la équipe yenn équipe manqué nous on a un effectif et au-delà de cet effectif on a un banc très riche am na équipe bari amuñu banc ñun loolu mooy sunu tey lool mooy sunu chance donc chance boobu moo tax ma ne la bi moo gën. man pour man personnellement moo gën mais pour ñu matérialiser ko il faut ñu jël coupe d'Afrique de nation bi à Abidjan te loolaa doon évaluer ma leen en 92 ñëw ngeen Sénégal jël seen premier trophée ñu tam aussi fay leen ñu suñu njukkal fay leen ñu suñu bor boo leen ñu fayee suñu bor aussi jox leen ñu coupe bi parce que teraanga teraanga koy faj te defe naa ne ñu ko defal. en tout cas Mbaye Jacques Diop jërëjëf may fàttali rek ne euh, conseiller technique la numéro un ci ministère des sports waaye tamit di administrateur euh, ci plateforme club des experts sportifs ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa di gërëm di leen sant. Ah. maa ngi leen di gërëm di leen sant. Ah.